tey boo gisee ma def émission spéciale Gémy moom sama chef la sama xarit ñu nekkoon depuis Gémy parce que man Gémy dama fa yàgg xam naa lu ñuy dund tey fi may commencé mooy nuyu ñëpp ziar ñëpp parce que namoon ngeen ma namoon naa leen. sant yàlla nuyu suñu sant jul sam gën suñu ñaari waajur damay gërëm ñuy jàppale di nuyu samay supporters ñi may bëgg ñëpp à travers BP ak ak bi Pato TV ak tey spécialement waa Sen TV yi ñëw xool ñu ak euh, Equivox di wax ni tey émission bi lan moo tax ma indi waa Gémy Gémy dama nekk. jaar gémi xam luy gémi élément gémi mooy monter 24 heures sur poste sur 24 du moom lañ naan sécurité am na mu toog fii 20 heures ba 6 heures du matin boutique yaa ngi nañ saveur d'Asie yi ñëpp tëj nañ moo tax ñun bi ñu daan def sama émission yooyu maa ngi doon jàngal situation bi si sama gis-gis bu ndaw ma ni man ñi war naa ma def dara pour ñoom parce que fa laa nekkoon sama premier combat gémi la ma fekk bi ma waxtaanee ak samay kilifa kii commissaire Ablaye Ka si ñi ma conseillé loolu ak ñoom général Lam ñu ne ma ñun de ñu ngi sa ginnaaw ñu ñu si kilifa mais loo def baax na ñu xam ne ñii pendant de vingt heures à six heures matin amuñ fu ñu jëndee ndox amuñ fu ñu jëndee lekk amuñ fu ñu jëndee naam mais nañu wax ne dëgg tey góor guy taxaw ñi dañuy jam faction dañuy taxaw taxawal nii gis nga dañuy taxawee nii kuy taxaw vingt heures ba six heures du matin di lekk di nga naan parce que soxla nga énergie boobu moo waral tey suñuy partenaire ñu mel ni Saveurs d'Asie Jus Nouroullah ak Jus Kër Yaay Mounass ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jàppale ak eau séral ak se Moussa Thiam financé ma ak Pape Laye bu nekk France ak sama yeneen gars yi ku mel ni tey euh, grand Modou Diop jàppale ma jox ma ay fruits jox ma ay jus jox ma ndox ak ay lekk na ma a xool élément gémi fi ñu taxaw nga jàppale leen ko parce que tey ay soldats lañ seen ngor mayu leen ñu laaj dara parce que policier du yalwaan policier du ñaan mais ku leen ko jox dañ koy jël parce que teraanga du tuut man si ñoom laa bokk su ma amee doole police moo tax lu ma am police moo ma ko may. mënoon naa nekk police dund ba dee kenn ma xam mais li ma nekk police buy bëri moo tax nit ñi xam ma kon lu ma am dama koy dellee police particulièrement ko jëlee di gërëm aussi le général Lam ak commissaire Massane Faye ak bi ma leen ko naa njaar bu dee loolu la maa ngi sa ginnaaw le DG de la police aussi maa ngi koy gërëm di ko sant ba ma waxee biram aussi la ma wax sax dégg naa ko te xam naa ko te li ma sant naa ko def di wax ne ñun di ñu tax a jóg mooy relation publique na dox na civil yi xam ne bu ñu tëddee nelaw alkaati yi ñoo tax mais alkaati yi bu ñu leen bàyyi ginnaaw nañ leen di fàttaliku nee naa leen na respect am suñ diggante mais aussi soldat na am suñu diggante fii ma taxaw nii oto commissaire baa ngi nii chaque fois dana fi jël évacuer nit hôpital muy kuy am doom. wala ku nekk situation bu dangereux li may wax xam naa ko te dund naa ko man personnellement dund naa ko ñoom dañu ko dund commissaire baa ngi li may wax bu dee ay fen dama ne bib da ngay fen ñun dañ fay nekk pour jàppale pour assister fii ma taxaw nii c'est stratégique parce que Médina fii la ñun ay sénégalais lañ on a porté l'uniforme pour défendre la nation la république les gestions républicaines mais en vertu de quoi population waruñu respecté nañ ñu respecté ñu respecté leen bu ñu gisee ñuy def dara ñoom nañ ci jàpp mais pas ñu ñuy yàqal. gëjoon naa génn xëy na loolu am na effet mais li may wax mooy na gars yi xam ne ñii dañ leen war a parce que c'est des pères de famille ñii duñ ay xale 98 ba léegi 22 ans de police la ku def 22 de service nekk doo xale tey li ñu bëgg mooy na damay jëlal ma waa GMI parce que c'est des pères de famille qui ont mhm. laissé leur famille pour la sécurité tey moom mi ngi nii sama kilifa la man mënu ma tëdd sama kër di nelaw ta ndax ñii parce que sama dikk moment bi may nelaw man déranger bi ñoom ci yenn condition lañ nekk. gars yi ngir yàlla ak bi nañ leen defaraat jikko yi nañ leen am soldat suñ biir nañ yaraat suñ bopp yaraat jikko yi bu ñu yaree suñ bopp duñ sonn parce que li ma di li am Chine am Japon am Corée war na mën am Sénégal bu kenn ku suñu ñun jëlee benn conscience di ko doxalee day dem li ma def nii waa Saveur dasi yi proposé wu ma leen ko ñoom woo proposé may gërëm grand Thomas waa Jinourou laa proposé wu ma leen Jamil Sam moom woon ne dama siy jàpp au séral grand cher mu ngi may dégg proposé ma leen ñoo ma proposé Moussa Thiam boutique am kër bitam la ma woo ñëw ne ma ñaata loo soxla ma ne ko ndox mu jënd ay 20 pack jox ma kër Mounaas jus yooyu tey defar doone ma koy jaar aussi au sama jabar maam Fatou sama kër la ma ko indil mi ngi nii si bi banaana yeeg pomme yi ma jënd ay nit ñoo ma ko jox ay sénégalais bonne volonté ne ma ñun on a pitié de ces policiers may gërëm ku mel ni Pape Laye ku mel ni Mourou Camara sëñ maam Abdou Mbacke sëñ Fallou ak ñoom dara ak ñi si jàpp ñëpp ak Doro di wax ni gars yi tey couvre-feu bi day spécial damay dem xool li nekk jot bi ma jox ci sama élément yi parce que ñi commissaire bi da bu la neexee nga sànni ci na wax naa lépp gis waxee gis nga police lii la fi nekkee ah lii la fi police nekkee kii auto police moo ko yëpp je bi lañ soxla chaque lii mooy taxawaayu police tey moo tax ñuy di nga ak di nga ñi je crois que dañu wàcc sur le terrain mais bu ñu doon wàcc sur le terrain dañu xam ne les agents seen conscience professionnelle dépasse na fenn fenn tey tey objectif lii la mooy fekk ni ku nekk dans le besoin femme baa ngi nii gars dañ koy yóbbu je crois que sant nañu yàlla bu baax ba ñemee situation mel nii di encouragé gars yi mon adjoint vraiment merci ay du courage gars yi kon couvre-feu bi day continuer direct bi day continuer kon dañuy dem Mohamed tey fan la ñu war a dem fan la ñu war a dugg dañuy dem rond-point Orange poste militant jox éléments yi nekk foofu xool na xaw a mit naa ndax tey tëdd nañ wala tëdduñ non tey xolos <laughs> ne ma big sa maa lay sponsor maa lay jox oto mu ngi nii oto la jël def ci carburant day jaay oto nag en cas la xaarim gi ba ñoo fa nekk ak Babacar Seck yaa ñu ngi leen di bëggee leen sant leen sargal parce que ñun ay doomu aadama la nekk ay Sénégal lañ dañuy ut bu ñu dimbalee suñu doomu mbokki doomu aadama bu ñu si jàpp lañ leen sant la gërëm di gërëm encore koo seeral Sabontadi, Yunurla Adeka Oil, laa la wax tëdd naa damay bañ violence tamit mais mbay mbay mënoonoon génn mais nga toog muñ mënoon naan ndox non mais naan ndox ci ponkal mu toll ni man day metti big big lu mu doon def da xiif am ah kii de daa mel ni moo ko dóoree dinaa ne ci jàmm ak ji. mais mais ma ah. uh-huh. dama yem ci yow. waaw mais xam la moo tax ma jaar tey uh-huh. dafa am lu xew fan yi Medina. yow Medina nga dëkk. te uh-huh. mbër nga donte ne bawal bawal nga aussi. occasion la aussi tey. pour nga wax waa Medina. yow citoyen sénégalais nga mais tey gis nga fii coronavirus bi toll. tey waxal sa waa population nee leen. nañ ko respecté. par hasard laa yemee ci yow parce que bi may ñëw xaw moon sax ndax fi nga dëkk donte yaa ma jàppale mais tey ban la message nga leen lancé. no li may lancé waa Medina bi moom ñun ñëpp ñu ngi gis li fi xewoon bu yàggul ki Dembo Ndiaye maa ngi koy ñaawlu nag sunuy rakka ak sunuy papa ak sunuy frère neexuñu bi ñu ko gisee ñun ñu fi dëkk est-ce que dégg nga ma mais li ñu lay ñaan rek yow moom sunu xarit nga sunu lépp nga homme de loi nga teewul yaa ngi ci làmb ji ñu koy dund. nga doon nit ku baax mais li ñuy wax rek dañ leen di sensibiliser ah ñoom ñëpp ñu moytu parce que tey jii tooñ baaxul quoi ñun Macky Sall mooy suñu président ñun ñëpp bu toogee taxaw ci télé bi ne lii la bëgg ci dëkk bi ak lii ak lii te feebar bi ku ne xam na ne day wàlle liy wax ji mooy ñu moytu nañu moytu est-ce nga ma mais lii dañuy moytu mu jeex ñu dem ku ne nekkaat ci leneen ah parce que tey jii bëgguñu ñun dëkk Medina deru Medina di yàqu mu nuy metti parce que man damay gis ci whatsapp beeg yëpp ñu naa booy Médina yi dañu réew affaire yooyu mais nañ xoolaat seen bopp gën a maandu quoi parce que man samay rakka fi nekk ak samay booy ñoom ñëpp ku ma ci waxal da nga may dégg waaw te fi mu ne nii foog naa ne loolu jeex na sax instant bi nii. jaratul mais mbay guy gi nan nga gisee li Big Pato def. non Big Pato nit ku baax la kii day jóge ICRIM ñëw ba suñu ICRI entraîné foofu jóge fa dem beneen ICRI entraîné fa man ni muy doxe noonu dal ma neex quoi waaw mu ngi def lu rafet daal mu ngi dox ci social yaa ma gën a xam.

6, 7. Restez chez vous égal. 20h bu ma génnee tasek bi bato maa ko tooñ man mbay guy gi. restez vous ku ne na nga toog sa gàllee non restez vous noonu laa ko mën a waxee tamit doom day bu leen ma jàpp kaañ yaa ma gën a xam doom yaay. Eh, mais sëñ Fallou. ban mhm. Medina parce que temps yi gis nañ benn ay message yoo si image yoo xam neexuñu daal lan nga ciy wax waa Medina. waaw Medina comme ñun ay jeunes lañ Medina lañ dëkk xam nga amuñ loolu Medina xam nga te instant yii dëkk bi trop. mais boo seetlee li gars yi di li gars yi di wax ak li am réellement dafay nekk loo xam ne ni si diamétralement opposé lu tàgguñ dinañ jël part wala dara mais kër bu doon lax nga woo sapeur ba sonn ñëwul dëkkandoo yëpp génn fay ko xam nga mais ak booy seen jeunesse jàppale ñu dafa war ñu ko def vraiment moo tax mais ngi si jégalu àdduna yëpp xam nga si jégalu gars yi quoi. Hmm. waaw mesure de sécurité mooy weesuwul masque yi nga ni moom la gars yi autorisé ak ay ak ay gel xam nga rek di set foo toll xam nga moytu jotaay respecté loi bi un un mètre un yi xam nga rek mooy loolu moytu bu baax daal. Mhm. non man wax dëgg lekk naa ko soobee man dama am ku ma woo nii rek moo ma xool kon baa ñu baal a tëdd comme que ñun instant bi dañu def benn patrouille doon sensibiliser rek. waaw xam nga ah patrouille kese la. waaw patrouille kese la waaw ah, jërë ngeen yàlla fay. mais mais yomb na de Serigne Serigne Serigne Serigne yomb na de. ñëw hmm. nii guddi gi nii ñu fekk la nii. booy en sorte Serigne Serigne Serigne. waxul li waxul li waxul li waxul li waxul li waxul li hmm? waxul yow rek a fi génn jàppal nopp ma xool jàppal nopp bi aja wàcc vingt heures égal vingt heures égal vingt heures vingt heures égal vingt heures mais ma dëkk Medina ma dëkk feneen c'est vingt heures égal vingt heures waa Medina restez chez vous waa Medina restez chez vous waa Medina répétez waa Medina restez chez vous vingt heures égal vingt heures ah bon waa Medina restez chez vous sëriñ da nga génnoon tombeek ma jafatu yi doon jox éléments yi non non teel rek dama dama nekk si yoon dama ne ba affaire affaire GMI ngay def. bu ñu soog a sorxoo tamit nag. ñu jégal ok. léegi dem ngeen tëddi. léegi on est content. chaque jour dama dire chaque jour. yow balaa yow chaque jour yaa ngi liggéey. yal na yàlla fay sa xol. yal na yàlla fay waa GMI. amiin yal na yàlla sàmm leen. bi vraiment métti na. man jaar naa circulation fi ma jaar ci police nag moo bëri <laughs> damay wër rek man xam naa li ñu dund. maa ñoom ñoo nekkoon ñii kii ñoo nekk doon jëmi moo tax sama élément la te man daaw lu ma doon dund ñoom mooy kafre maa ñoom amuñu ay garaat nii dunduma loolu ak ñoom xam nañ li may wax man li ma xam mooy liggéey bu ñu ko jotee nañ ko liggéey bu ñu paree ku nekk nekk si jàmm mais ñii c'est des gens qu'il faut encourager qu'il faut soutenir qu'il faut respecter parce que c'est des pères de famille am nañ ay mbokk dañoo bàyyi seen lépp ñoo taxaw fii vingt heures ba six heures du matin du ay caaxaan ku ko waxul gannaaw ñun ñu leen ko les impressions sont, sont, les, sont, les, mêmes, des impressions de satisfaction. Voilà, donc euh, on est là, on fait notre travail. Donc il y a un collègue donc, qui vient, qui nous motive. Donc on, on ne fait que s'en réjouir. Voilà, c'est tout simplement ça. Et on continue le travail. déjà li may njëkk def mooy remercier leen fa ñoom dañoo yombal liggéey bi boo seetloo ba ñoom ñëpp samay xarit lañ boo xoolee man police ñoom ñëpp samay doomu bàjjen lañ quoi <laughs> ay doomu bàjjen laa daan jàppee jàppee ba doomu nijaay di wax ñun noonu la ñuy dundee mooy solidarité bi su may wax si ñoom sax samay rongoñ day bëgg a tuuru parce que je sais que c'est des gens qui xol dafa fees actuellement je sais que li ñuy enduré xam naa ko c'est des se plaindre qui vont jamais dire que dañoo xiif wala dañoo mar mais malgré la situation ils vont rester là pour surveiller le couvre-feu ni ñuy jàppale dama koy limaat Saveurs d'Asie mhm. jus Nouroula EDK Oil ak jus Kër Mounas au séral Sadef Diop Modou Diop Maodo bu Port Maam Abdou Mbacke ak euh, bonne volonté yu ñu jàppale yëpp ñoom Pablaay bi nekk France ak ñeneen ñu ñu jàppale yëpp duñ ko fàtte di wax ni ñi bëgg a bokk ñëpp ñun yaatal nañ mbir mi man je suis disponible ku préparé say bagage sa kër sax boo mënee Big Pato ba je suis prêt pour soutenir policiers yi wala homme de tenue sax en général je suis prêt pour ñu accompagner leen parce que lii du dara. benn deux heures temps trois heures la ñuy def distribuer ko bu jeexee oto baa ngi ne bi ñu commencé feesoon dell mais dama la xool tey presque lépp jeex na ay xottu carton moo lañ soxla coronavirus a métti que eh, ma yow ma commencé ak waa police fële te di ko nañ bëggante nañ jàppante nañ yéeneente jàmm nañ jëmbalante yéen policiers yéen laay waxal seen frère ñoo nekk ci mbedd mi am leen compréhension ci ñoom mais yéen frères civils aussi am leen respect de tenue bu ngeen defee noonu rek Sénégal jëm kanam soyez professionnel soyez attentif soyez courtois courtois mais aussi soyez très ferme envers ces def bu leen ko def man je suis trop <laughs> distrait soyez fermé aussi soyez aussi envers ouvert aussi il faut écouter les gens laaj leen seen problème lan la ngeen waxtaan ak ñoom mën leen dimbal n'est-ce pas ku bëgg a dem hôpital dimbal leen ko ku feebar aussi nekk situation dimbal leen ko. te loolu gis nañ ko sànq rek. waaw loolu def nañ ko sànq parce que bi ñu commencé rond-point Ates am na koo xam ne auto moo ko yeb di ko yóbbu fële na la pour vous dire que loolu sant policiers yi mooy ñu assister population bi mais population en compte aussi <laughs> moom. man moom maa ngi xaar booy bu moo tase nga may urgube <laughs> alors alors damay ci mité bi rek doon bëru defante ko ak yow oui alors euh, euh, euh, ndax action yi war na ñu ngi xaar nga gën kaa yaatalaat parce que am na point yoo xamante ne peut-être wala lu ci mel ni ay banlieue demaguñ ci wala yooyu ndax mën nañoo séntu ñu demaat ay sama équipe maa ngi remercier aussi le leen naan Ndiassa Dioum bi bi bi relation publique actuellement moom mooy cordon affaire moom naa ma tel jour génnal bu ma nee génn la ma génn mm-hmm. man samay kilifa laay waxtaanal ñëw maa génn te yëguñ jo di wax ni dañuy ñaan yàlla rek partenaire ñëw bu amoon ay partenaire suba yu ma financé ba suba ma génnaat mm-hmm. li may fi def yëpp ay civil ñoo ko def oto bee ma lay dawal li muy rafet rafet li muy cher AK international moo ko moom xaadim moo fa nekk Kébé ak Mbabacar Seck di nuyu aussi sama xarit Demba Xaram Lo di nuyu ñoom ñu ñu war a jàppale ñëpp Salif Diop aussi envoyé na message sànq nee na bëggoon na si jàpp mais mooy loolu ñu ngi koy woo. weesuwul de weesuwul de. ñu ngi woo ñëpp bonne volonté yëpp di wan sama xol moo fees parce que li gars yi dund xam naa ko et puis c'est compliqué.